a jóg te jéem a xamle ti mbër ma amar wa yàlla ma ki gën ci réew mi a jóg te jéem a xamle ti mbër ma amar wa yàlla ma ki gën ci réew mi wajjahtu kulli yasaa qurbin min Allah barab bi ngeen xamee moon si Touba ba tax dootu leen demati feneen di jéggaan leneen agsi na fii si dëkk bu sell bi showroom Diaw Déco si Touba 28 ak le gérant Pape Abdoulaye Diaw taalibe Serigne Fallou Cheibou bi moo sagal doomu dara bis ni ki tey jàppaleen kenn dematul feneen di wuti leneen ndaxte nag ni ko Serigne Touba waxe woon si Matlabul Fawzayni lépp lu gën léppay ak si Touba Diaw ko ma nga ca yoon wa mbokki Sénégal mbokki Touba lépp lu ajo si wàllu lumière électricité meuble pour seen décoration métallique ak déco deko Touba 28 jaxle jeex da ngeen bëggoon ay enseigne ngir taral sen barabu kay mu totem branding habillage façade lettrage enseigne lumineuse yu mengo ak jamono jaw deko famuy tibé fofé la ñi gëna xam ñi gëna a ñi Kondal bëgg lu baax dëkk yi di kon 28 am nañu ay lumière sur toutes les formes ay nouveautés tendance yi nga xamanteni partout si barab yi gëna a ay luminaire suspendu luminaire plafonniers si jaw déco ci Touba Touba une large gamme de luminaires et de lampes waaye une décoration liñ ci mën mëni kenn ko si fii si décoration yu méngoog décoration intérieure ngeen am salle le salon à manger ngeen am jàkka jumaa bug aïe ay lustre wala le plus xeet décoration pour barab yooyu bu barabou amee barabu xasida ñëw leen jaw déco décoration chambre espace bu mën Le plus lépp lu jëm électricité am les grandes marques du monde le grand Ingelec am nañu ay contact ak le plus xamante ni daal moom kay nga découvrir sunu ay découpe laser jaw déco mo len yembal machine Huit tax ngeen meuna réaliser li ngeen bëgg jaratul dem fanen sunu ay machine mo leen gennal ay design yu mucc ay pour seen décoration bu meuna don rampe escalier wala lépp plus travaux sunuy enseignes sont de qualité garantie pour une durée de un an si wàllub menuiserie ya mbokk yi bu ngeen bëggee dressing cuisine américaine comptoir ngeen bëgg ay logo yu mucc ay mën ngeen woti 76 224 44 04 wala 76 726 84 84 jaw déco si Touba moo gungé. gungé lépp luy seen travaux ànd ak personnel bu disponible accueillant xam wàllu wi ak gérant bi nga xamante ni lépp lu yokk Touba moo ko tax a jóg moom Pape Abdoulaye Diaw taalibe Serigne Fallou Cheibou mooy ñaanal ku tedd ki Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides yàgg fi lool te ànd ak wér leen ñaanal màggalu jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen nuyoo fii nag ci daaree Kamil ci jotaay boo xam ne ñu ngi ko tuddee xamle bu baax bii di ñaareelu émission bi euh, ñu jëmale ko nag ci jëmm ju tedd joo xam ne ñi ngi koy wax sëñ Mouhamadou Diagne waaye ñu gën koo miine ci Baye Diagne Daaray Kamil Baye Modou Diagne Daaray Kamil ñu seq jotaay nag ak Baye Cheikh Diagne mi nga xam ne moom la ñu feggool suñu tukk càmmoñ dañ koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu soog a sóoboo moom ci li nga xam ne moom mooy laaj yi ñuy fàttali ne yéen a ngi ànd ak seen télévision Al Khadimiyyah di len ndokkeel bax ci wéru safar yi nga xamni mo moo tolloog atum ak ñen téeméer ak ñen fukk ak juroom ci ati gaday gi bay Cheikh alaykum wa rahmatullah wa alaykum micro bi wa rahmatullahi taala wa barakatuh ah, mbokk talibé yi mbokk jullit yi ñi ngi leen di nuyu nuyu bu gëna tedd te fas euh, euh leeral ci mbirum sëñ Modou داري كامل كن بس كوي نتعامل يعني يوم بس بيجي إنسان بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم لكم مدين يا كن يا كن استعين يدين السرعة المتقيم سرعة الشيء أنا متعلم خير مغلوب بعد برد علينا بسم الله واو مبكي تعلمي مبكي جلدي نجلين فسيني indil loolu ñu ñuy sàkku ci ci ci man li ma ci xam fas naa ko yéene leeral ci mbirum sëñ mat jaañ waaw sëñ mu jaañ nag moom. xam naa laaj bi rek mooy bu ñu ko bëggee xam jaar-jaaram. waaw mooy gane jamonoom. waaw jëkk rek ak uh, fi mu jànge waaw incha allah nga ñëwal ñu si loolu. moom ma nga ga gane àdduna ci Njaañ. 1914. Mm-hmm. 1914 la gane àdduna moom uh, moo kii mu àndaloon Cheikh Abdoulaye suñu borom daf leen um, yàgg ba ndax nee na uh, ay bis la ko sëriñ bi jiitoo ci àdduna. bis bi sëriñ bi gane àdduna bi mu dellusee la ci la ci la ma gane àdduna ci Njaañ 1914 waaw foofu la baayam nekkoon Mor Kumba Jaañ moom nag mi ngi bokk ci néegub seey moom sëñ Mourou Sa ak sëñ Mourtala moom la bokkat néeg néeg bu néegub néegub seey ci la bokk bi mu ganee àdduna 1914 nag ci Njaañ foofu la nekk ba dal jàng alxuraan baayam di ko jàngal baayam nag ku ku mënoon alxuraan la moom suñ Mor Kumba jaañ moom it moom sëñ mag bi daf daan wax ne su ma Mor Kumba rek ceeñeeri alxuraan yi laay jëkk seen bàyyam nag dalal ko jàng foofu mu tàmbali faa jàng jàng ba ba ba sori ginnaaw bi nag mu mu wëlbatiku wax ne dafa bëgg laxas jàngi tàggu baayam baayam ni ko ah déedéet dangaa bëgg fooy nelawee te kenn du la yee rek mu toog toog noog ba mu yàgg ba am ab di ay fan nag baayam soog koo istixaar ni ko nekk kon léegi kaay ci loolu nga doon wax ndax bu la ko teree ëllëg gis mën a balaa ëllëg duutoo ma gis te te fekk doo mën la nga war a man kon nag ñëwal dem jàngi waaye nag ñetti at laa la may soo mokkalee ñëwal soo mokkalul ñëwal mu ne ko waaw mu daal di laxase foofa njaañ dem dëkk bu ñuy wax ngay saa yoro ci góor gu ñuy wax eh, eh, sëñ yànqoo ba gay foofu la demoon jàngi ba mu fa demee jàng nag yàlla dogal na loolee ku bàyyi ma ba mu daataan jot suñu borom dimbali ko mu man alxuraan lool daal di bind ab kaamil daal di ñibbisi ba mu ñibbisee ah nekkaat fi baayam ah, ab diir mujj euh, ba baayam euh, yëkkati ko jox ko jox jox na ko sëñ bi ci njariñ moom gis na sëñ bi moom sëñ Modou Diagne baayam joxoon na ko sëñ ndax bëkk néeg bu ñu daan wax Sam Aminta Diop mooy najaay moom ndeyam bokk ndey ak baay boobu mu ngi ci kër sëñ bi ñu jox ko ko mu mu nekk foofu ci sëñ bi. nekk na fa ab diir nag ba ba bi sëñ bi euh, laaxoo nag mu mu mu dellu siwaat fekk na baayam euh, sëñ Mor Kumba Jaañ sëñ bi da ko woowoon njaarim ba mu ko woowoon njaareem nag waxtaan ak moom la mu koy wax ba àggal nag ne ko boo fi jógee di nag ma féete nii wax jox ko wetu wetu gosaas googu mu dem gosaas ci sëñ kër sëñ Mat Jaw Paxa moom sëñ Mor Kumba Jaañ mooy bàyyi euh, sëñ Mat Jaañ mu ànd fa ak sëñ Modou jaañ moomu nag nekk fa paxa ci ci ci Gossas nekk na foofu diir ba 1933 la la la sëñ Mor Kumba moomu war a moomi Njaañ moom boobu moo mooy mooy mooy doon sëñ Njaañ mu mu jóge nag paxa dellu Njaañ ànd ak moom nag mu nekk mu nekk nag mu euh, nekkub sëriñ Njaañ nekk na fa ab diir euh, do booba moo yor moo yor moo yor liggéey bi moom sëñ Modou Diagne moo yor moo yor loon bàyyam liggéey bi ndax boobu bàyyi mag la moo yor moo yor euh, dëkk bi nekk na fa nekk na fa nekk fa ba 1945 euh, la bàyyam wàcc liggéey bàyyam nag daf ko noonu fu mu jugee nag na nga dem Bawol waaye bu nekk fii doon jaamu ma kodd rek léegi nag ba nga xam ne 1945 bàyyam wàcc na liggéey mu daal di fay nawetaat bu 46 47 nag la fa jóge ñëw. ñëw ñëw Bawol ba mu demee Daaru Nayim la nekk ci euh, fekk ne booba euh, ay euh, yaayam ak fokk suñu wax sëñ Mor ak Samba Aminta moom ak sëñ Cheikh Diagne ñoom la fa fekki woon mu nekk fa ba ci déwén sa ay ay ay taalibeem yu nekk ajeen daal di koy fay jël si yóbbu ko indi ko dëkk bu ñuy wax yaaween foofu la nag la foofu nekk samp fa daara alxuraan nag di jàngale di jàngale di jàngale daara ja nag yàgg na lool am na ñu baree bari ñoo xam ne ñi jaar nañ ca ba man fa alxuraan am na ñoo xam ne ñi euh, ba ni mu jugee ba ba ni mu jugee foofu ñëwaat euh, ñëw tuubaa daara ji di di di di kifin bi di dox euh, nga xam ne nga xam ne am na ñu ci baree bari ñoo xam ne ci daaraam lañ génne ba ba sampiwaat daara na ñoo xam ne ñi ci daaraam lañ génne sampiwaat daara ku ñuy wax sëñ Mor jaañ ab sëtëma Njaañ la dëkk ak sëñ Mbaye Diagne ak sëñ ki ñoom ñëpp samp nañ ay foofu ay daara ci ci daaraam lañ jaar ba jóge fii dem foofa eh, samp sampaat fa ay daara eh, loolu nag mooy daara ji ba mu nekkee foofu ay yaaween itam mu samp eh, daara ji di jàngale di jàngale di jàngale boole kook liggéey nag ab liggéey ku ku mën a jàmbaar ci liggéey la mu boole nag daara ji di liggéey ak ak di jàngale defe naa 62 la la lañ fi indi coopérative coopérative boobee ba bañ koy indee ci saate ci sëñ Mamour si la daf ne fii ne mbooleem li ñuy ne fii de sëñ mu jaañe ma ci doy ci ci ci yor kopp bi ñu daal di koy wooye ndax boobu saate ak yaaween eh, xaw nañoo soree te boobu saate mooy mooy mooy mooy mooy borom dëkk bi léegi nag mu ne sëñ mu jaañe ma ci doy ñu jël sëñ mu ñu daal di koy wooy sëñ mu jaañ mu ñëw ba ñëwee eh, mu yor copie bi daal joojee fi mu ne eh, eh, bari nañu sëñ Abdou jóob mii imaam jaar na fa ak sëñ Mbacke Diop ak mu ñu waxtaan ak ñoo ñëpp fa lañ fa lañ jàngee ba ba ba ba génne fa. Mm-hmm. bi mu yoree bi nag 1962 <coughs> yor copie bi nag yor copie bi ba ba mu yàgg copie boobee def na ci loo xam ne eh, lu yéeme la ndax am na at moo xam ne moo moo koy ba mu ko peesee ba ñu ñu war koo jël. ñu ñëw euh, euh, euh, jël gerte gi ba mu àgg mu des fa ab ab ab jël boo xam ne bii bokk na ci te te te xamul ko loolu dafa daal da ko daal di jox jigéen ñu daal di koy segal def ko ak diw boobu la ñuy wax ristourne bu ristourne bi ñëwee mu daal di koy seet kenn ku ne la nga jaayoon mu seet lu nga war a am ci xaalis boobu mu yëkkati ko ci xaalis boobu joxe ko ba xaalis ba jeex waaye benn dërëm lekku ko ci loola ci ci boobu ci copie bi 1962 63 la ko def ba ba bi. xam nga moom euh, sëñ Bassirou la jëkkoon a àndal moo doon sëriñam bu jëkk mu ànd ak moom euh, di ko liggéeyal sëñ Bassirou moomee euh, yàgg naa ak moom lool liggéey na ko lool lool lool ba ginnaaw bu mu wàccee liggéey moom sëñ 1966 daana def ajjuma ju jot daana jógee aajee yaawin foofa doo ñëw ñëw takku saa itam ñëw ñëw ci bërëbu sëñ sëñ Bassirou wàcce fa ab kaamil bi ajjuma ju jot dana ko def 1966 ba ba ba ba 1968 bi bi bi bi bi bi sëñ nelawee gannaaw bi nag bi bi bi sëriñ bi toogee la soog a Euh, ñëw jébbu ci ginnaaw bi nag booba euh, ne booba sax xamaniku xamante wu la sëñ ab laata waaw kon xam naa loolu moom Baye Cheikh am na solo lool day mel ne kon li ñuy wax doomi soxna ju ne bu fekkee daa daa futtiku dem jàngi ba xam ni mu war a xam ba noppi mm. day am ñoo xam ne suñu wattoo téere yàlla bi mm. seen dund gépp dañ koy saxal ci faranku laay yor daara di jàngale ñii ñu leen di binduloo mm. ñii di saytu daaray kaamil yi moom lëggéeyam bi gën a ràññiku ci alxuraan da hmm. nga jàpp ko loon ci mën a indil jëkk ñuy dugg ci digganteem ak njabootuk sëriñ bi liggéey liggéey bi liggéey ci alxuraan moom mooy mooy loolu ma la wax daara ji moom bi mu ko yoree hmm. euh, bari na ñoo xam ne ñuy jaar nañ fa ci moom hmm. mu di leen jàngal di leen liggéeylu euh, am na ci sëñ boo koy daa wax ne daara ji moom daaray euh, daaray yar la ak daaray jàngale daay dana dana la euh, euh, tërbiye dana la jàngal kem kum fa yor ku nekk bari na ñoo xam ne ñi jaar nañ ci daaraam koy suñ si yernu Mbàkke Galaw Ngal mi ngi wax fii jaar jaar na ci daaraam ñëw na ci daara ji ndax boobu mi ngi yor magam soxna Ami Mbàkke su ñëw na fa ak ku ñuy wax sëñ Amdi Ñang ak sëñ Assis Ñang waa ci waa kër waa kër sëñ Mudu Xari Ñang ñëpp jaar nañ ci daara ji ak ak ñu bëree bëri ñoo xam ne ci yàlla nañ ci daara ji ba ba jóge ci sampiwaat ay daara. kon daal la ñuy déggee ne kon euh, Baye Mourou moom liggéeyam da ko boole woon ak tarbiya gi ak njàngale mi ak yar bi. ñett yooyu la boole woon njàngale ak yar bi yëpp la boole woon. Mm. ndax ku ci nekk. Eh, ja dana la la jàngal alxuraan dana jàngal xam-xam dana la ba nga xam ne bii da nga mën a liggéey itam. Mm-hmm. donc daara tarbiya daara xamle la. Mm-hmm. moom moom la yor foofee yor ko ñu bari bari jaar nañ ci ci ci ci ci daara ji. Mm-hmm. waaw ñoo xam ni eh, ay eh, kii lañ yoo xam ne jaar nañ ci daara ji ba mën ko wëlbatiku dem sampiwaat ay daara di jàngale. jàngale waaw suñ Mor jaañ moom ma lay wax ci Njaañ. Mm-hmm. ab sëtama moo jur ndeyam waaye moom ci jaar ji la jànge ba waram samp daara foofa ci Njaañ ak sëñ Bay jaañ ba rakam ak ay sëñ Saar ak sëñ ñoom ñëpp jaar nañ ci daara ji. Mm-hmm. waaw tubaarkàlla Baye Cheikh loolu nga wax ne am na solo kon day mel ne sànq ñi ngi dégg ngay tudd sëñ Basiru kon day mel ne amoon na xalaaxa bu dox digganteem ak njabootuk sëriñ bi hmm. ñu mën cee tudd ku mel ne Cheikh Abdoul Ahad hmm. wala sëriñ Sali wala Cheikh Mouhamadul Mourtada loolu lañ ci mën a indil waaw loolu moom hmm. mooy liggéey bi sax ndax euh, bi nga xamante ne bi euh, euh, bi muy tàmbali bi muy bëgg a tàmbali liggéey bii boobu nee na dafa jàng alxuraan ji ñu wax tawreet mu def ci moom ab ab jaxa-jaxal ndax dafa lu alxuraan ji la am am yuñ bokk léegi yéeg mu jëf ci moom jax-jaxal hmm. mu dem ci sëñ Abdou xaajaral radiyallaahu anhu maa ne ko man de damaa am euh, ak tawat sëñ bi ne jëyi loxoom bëgg koo ñaan ma ne ko ah, tawati xol la kat mu delloo loxoom ne ceel ñu bokk toog di tàngal ataaya bañ tàngalee ataaya ba ba bañ xelli ab kaas jox sëñ mu jaañ sëñ Abdou Xaadir jóg ne ko saa baaram ne ko sëñ mu jaañ loolu lañ ko doon wax fas ko ci kaas bi ne mu fas ko ci kaas boobu naan ko ba mu ci jógee nag la la la la ko àll boobu dugg na 1967 boobu nag euh, nee mu daal di boobu mu nga yeeween ci daara ji mu dem tool dikk nag di def nag xalaat euh, diggante yonti yàlla Muhammad sallallahu ak sàmbat rasul yi àndoon ak moom mu gis ne euh, sàmbat rasul yi àndoon ak yonti bi sallallahu daal seen ngóor a laa naw man mm-hmm. ndax ñoom yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabi nabi lu mu la moom du bind du saaba yi nekk fi moom nag lépp loo xam ne li suñu borom wax na ko jibril alayhi salaam indi na ko jox ko ko wax yu ko yonent yàlla musaa rek bu ko waxee saaba yi ñoom farlu nañ ba bind nañ lépp dara rëccu ci alxuraan dara rëccu ci hadiis yonent bi salaam dara rëccu ci te seen it booba ñoom ay bal lañ daan añee ak waxtu wu nekk ñu ngi ci ay xare ak ay ñàkk xiif ba ay lu nekk lañ boole te farlu nañ ci lislaam ba dara manquewul ci loolu ne nun murit yi ànd ak sëriñ bi nag ñu gis ne kat Euh, murid yi képp ko koo ci wax rek mu ne ah xasida daal kenn mënut a am lépp ne may loolu daal def nañ ko ngóor waaye man defuma ko ngóor mu daal di wax ne foofee la daal di jaboon ak bis boobu daal di wax ne man de fas naa yéene gépp xasida goo ne gii saa mbët bi tegooti na ci bu soob yàlla dinaa ko am daal di dugg ci àll ba 1967 mu daal di dem daal di jugee yaawén daal di dem euh, saate dëkk bu ñuy euh, saate suñu daal daal di dugg saxaar boobu saxaara mu daal fay dugg saxaar dem njaareem ba mu demee njaareem gis euh, sëñ Mor Mbay Cissé moom it xaritam la bokkoon nañ daara mu ne mu ne ko man de damaa bëgg a dajale xasida yi sëñ Mor ne ko ah yow de li nga ma wax kenn mosuma ko wax waaye nag léegi demal wuti xasida goo amul rek ñëwal fi man mu daal di fay bàyyi ko daal dem ci sëñ la Lamin Jóob Dagana moom it xaritam la daf daan di dem fa moom àbb ko téere yi di jàng di fa ku yàgg bëgg xasida nag de mokkaloon ci lu bare bëri ci ndawal mi tam mm, xam naa loolu sax dinañ ci ñëw bàyyi sax ndax mooy laaj bi ñuy war a tëjee mooy diggante ma xasida yi ak diggante ma xam-xam mooy laaj bi ñuy tëjee waaye fii xam naa nga del si waatal ñu rek ci xalaaxa bi doxoon diggante ma njabaru sëñ bi rek muy xalaaxa boo xam ne rek am na loo ci xam loo xam ne loolu moom sëñ Abdoulaat sëñ Saliou mm. moom la jëkk àndal moom mooy mm. doonoon sëriñam ba ba ni mu fa Euh, euh, ñooñu ma lay wax it. Hmm. loolu euh, diggante digganteem ak sëñ blaat mooy mooy lii ma lay wax nii de dex sëñ Fallou it sëñ Fallou xam nga bàyyi kii sëñ Jatar ne dafa ba ak ànd ak sëñ mët Jaañ yóbbu ko ci sëñ Fallou ba ko nuyoo léegi moom. ba ko ne kii sëñ Mat Jaañ la tudd mu ne ko ah Mat Jaañ doomi Mor Kumba Jaañ ne mu ne ko ah kon de man loolu xaw ma ko ci woon mu ne ko sa baay day mas na maa bindal ab asmaa wu ahlu badri jamono bi sëriñ bi nekkee jolof moom sëñ Fallou nee boobu mi ngi ko ànd ak Ibrahima Koussi sëñ Ibrahima Diop mu fab xasida ga moom ci boppam demal boppam ci sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu maa ne ko xasida gi dee dama koo bindal woon koo jàng te bëggoon bala ma koo jàng rek am ci seen digal mu ne ko xasida goomu mu ne ko asmaa mu ne loolu kat du moom ci sëñ Fallou mu nga ma teg ñu méetu koo laal mu wax loolu sëñ ma jàng xam ne digganteem ak sëñ Jaañ moom itam lu amoon solo la léegi nag Euh, digganteem ak euh, sëñ Blaat ak sëñ euh, sëñ sëñ Saliou yooyu moom mooy ak mooy mooy kii bii ñu jëm ci kanam mm-hmm. lool mooy mooy tàmbali xasida yi mm-hmm. ak yi moo ko booleeg sëñ Blaat kon xanaa loolu moo ñuy may buntub ñu laaj la kon digganteem ak xaside yi ak mm. digganteem ak xam-xam mm. waaye nag njëkk digganteem ak xaside yi ba noppi ñu soo a ñëw ci digganteem ak liggéey bi mu def ci xam-xam kon digganteem ak xaside yi ngir nga xam ne dana yóbbaale loolu ñu la doon laaj ci loolu dana dugg ci biir eh, bismillah diggam ak sëñ Blaat ak sëñ Saliou ak mm. ñoo ñëpp dana dugg ci biir ci biir liggéey boobu alhamdulilah loolu loolu liggéey bi moom bi nga xamee moom moo ko moo ko ko moo ko tax ak léegi nag bi mu bu mu tàmbalee liggéey bu dem ci sëñ Mor sëñ Mor Mbaye si dem ci sëñ Mat Lamine Diop Dagana mu ne ko nag léegi damaa bëggoon ko abal ma xuraan ya mu ne ko ah duma la mën a abal lépp de danaa la mën a abal ab dog saa yu ñu ko bindee ba mu àgg boo ko indee ñu jox la beneen mu ne ko loolu mënees na ko mu fab ab dog daal di koy jox sëñ Mat Jaay sëñ Mat Jaay daal di fab dog ba daal di ñëw yaaween daal di wut nag ay bindkat yoo xam ne dañ koy bindal ngir mu am day bi mu gaaw rek na day bi eh, am te wow mu daal di jël ku ñuy wax sëñ Saliou Ka doomi sëñ Moussa Ka la bu ab gorooma ak ku ñuy wax ngañ ba foofu la nekkoon moom taalibe sëñ Moussa la ak ku ñuy wax sëñ Abdou Dieng Samsam moom kër sëñ Mor Ba si ñu mën a bind lañ mu daal di waxante ak ñoom ci bind woy nangam woy nangam la di fay ñu daal di tàmbali ba Euh, ba mu koy tàmbalee nag ba mu ko tàmbalee ba mu kii mu daal jëm ci sëñ Fallu wax ko radiyallaahu mu ne ko man kay damaa tam liggéey boo xam ne bii mu ko déggoo sëñ Fallu dama bëgg nga ne ko dana àgg waaye dana àgg mais sëñ Basiru nag daan wax sëñ Fallu moom yàlla gaa ngi ci làmmiñ loo bëgg mu am ne fexeel ba mu wax ko rek mm-hmm. mu ko dana àgg daal di ñëw daal tàmbali liggéey boobee ba ko tàmbalee nag di leen bindloo ñoom ñooñu sëñ fa sëñ fa Saliou Ka sëñ Ngañ ba ak sëñ Abdou Dieng Sam kenn ku ni mu waxanteeg yow way nangam ñoom ci seen bopp maa ngi fàttaliku saa yuñ bu bu nawet bi ñëwee nii ñu ne ko ah nun ko dun mën a buutuñu mën a bind ndax suñ tool yi nangam ak nag muy leen dem bind daal jël nun donga yi nu ànd ak moom dem bayali kooku toolam sëñ saalibu ko ak sëñ ngañ ba ñoom boobu ñoom lañ dëkkal eh, eh, Abdou Dieng moom boobu ma nga sam-sam ñooñu moom ànd dinañu jël nu dem bayali kooku toolam te fekk bi ngi waxanteeg moom eh, mu mu di ko wax woy nangam da koy fay mu di leen ko fay ba nga xamantene ne tàmbali na loolee yor dog dog boobee mu andi ko yaaween teg ko fa ci négam bis mu xeyé fa dem maké ñu wëlbatiku ne euh sa kër la kana mu ne ay téerib seigne sali seigne seigne Abdou seigne Modou Lamine ba te fekk na lolou ni seigne sali seigne Modou Lamine nettali na ko ne mag bi ci boppam radiyallaahu anhu mas na ko dénk seigne seigne sëñ Modou Lamine ni ko bëgg ñu dajale xëss yi mu nekk ca moog ñam ca àndal ñu nekk ca nekk ca nekk ci ab diir sëñ bi jaaraat fa ci waxtu takkusaan foofu ni la ana mat la ne ko mu ne ko ana la mu leen waxoon yéen a ngi ci ñu ne ko ñoo ngi mu ne asee bu ngeen bàyyi bu ñu jëmee ba ca kanam des na ko def naa ko bëggee ñu ñu sëñ mat la mi nee na lañ ci jotoon a dajale ñu teg ko ci néeg ba euh, suñu borom dogal euh, néeg ba lakk lépp lakk mënatuñ caa euh, def dara léegi nag sëñ mu jaañ bi mu àbbee dog boobu it ba ñëw teg ko néegam dem dem Mbàkke ñu ne ko euh, fekk fa ne ko sa kër lakana mu ne ay téere bi suñ sëñ la Lamine ba ba mu ci dawee ñëw ñu ne ko téere yi moom dara la ko ci ma ngi ci jàkka ja mu ne alhamdulilahi rabbil alamin mu def ko def ba ci déwén saati mu woo defaat ko demaat Mbàkke mu ñu ko fekkaati ko ne ko sa kër lakana mu téere bi sëñ Modou Lamine ba ñu ñu am am accès ñu ne ko téer yi dara la ko ci ma ngi ca ma ngi ca jàkka ja mu ne alhamdulilahi rabbil alamin beneen bi ko ñetteel ne bisu màggal Tuubaa la ñu fekk ko fii ci kër jigéenam bi mu daal fii ci wax bitigu Fallou jóob ci ci soowu kër Sëñ Blaat gi ñu fekk ko fa ne ko sa kër lakkal ne mu ne ah wala mu daal nee na ñetti Mohamed jigul njaq de sa njaqal nga yéen ko mu daal ne ba ñetteel ba ne ñetti Mohamed jigul njax Mohamed mu daw ñëw ñu ne ko liggéey ba téer yi dara la ko ci mu ngi jàkk ji mu ne kon nag xam naa liggéey moom suñu borom ànd na ci ndax li kër gi ñett lakk na ñetti yoon yoo xam ne téere baa ngi fi te moom fekku ko fi su ko fekkoon sax mu daw jël téere bi ñu ne moom téere bee ko ci ñoom waaye benn yoon fekk ko fi te taxul téere yi lakk mm-hmm. mu ne kon lii xam naa liggéey moom suñu borom ànd na ci mu mu mu mu yor liggéey boobee li liggéey ba ba ba day ba àgg ba day ba àggee ba nga xam ne topp nañ ko ba mu wow mu daal di mu koy jox ku ñuy wax Ablaye Kane mu mu mu di ko bind mbind mu rafet nag moom mm-hmm. loxo moo xam euh, euh, da koy mel mu bind diiwaan xuraan yi boobee ba ba ba mu àgg euh, ne booba dafa bëggoon bu àggee mu jox ko sëñ Fall waaye ginnaaw bi sëñ Fall wàcc 1968. Mhm. Cheikh Abdoul Ahad mi soog soog a toog xalifa ci këram gu mag gii kër gu mag gi ñu nekkoon fii kër sëñ Saliou. Mhm. boobu li tàmbalee ci xëy gi jëm soow mooy kër sëñ Abdoul li ci des mooy kër sëñ Saliou. Mhm. léegi nag bi mu àggee 1969 la téere boobu àgg mu dem euh, kër sëñ Mor mbay ñu defar ko jëfira defar ko kër. mënu ko ëcc mbalaan ne sëñ Mboy Mor Mbaye def ne ah sëñ Modou Diagne si téere bi bu ko jox benn seex yéen ko gën a bëgg waaye man nag ginnaaw man daal dañ ko defoon ngir eh, liggéey ci sëñ Tuubaa ku fi toogal sëñ Tuubaa ko jox na nag am na ku ñuy wax Baye Modou Gaye mu nekkoon Daare Kaamilu Njaareem mu mu ne ko fekk mu ne ko dama bëgg eh, dem nag eh, yóbbu téere bi ci sëñ bi fekk na moom Baye Modou Gaye moo ko gën a miin sëñ bi mhm. mu ànd ak moom di bisub ajjuma di ñaari fan ci weeru kori ci 1969 léegi nag ba ñu àndee njaareem ñëw xëy si ci yor-yor bi fekk sëñ ba mbooloo maa ngi ko wër mbooloo maa ngi ko wër mbooloo mu ñu ñu toog ca gannaaw nag di batu ndànk ni murid yi def batu ba àgg si ci kanam sëriñ bi. Baye Modou Gaye daal di nuyoog sëriñ bi daal di ko ne ah sëñ Modou Diagne mii da laa bindaloon ab téere bëgg na ko mu ne ko bismillah sëñ Modou Diagne yëkkati téer bi daal di koy jox sëriñ bi ak sëñ Abdoulaye mu daal di koy teg ci kawam daal di laqar ci malaan mi. daal di ubbi jafire ji daal di génnee téere bi daal di koy ubbi mu ni ko xàcc xar muy xëcc xasida di mbindum loxo ne sëñ bi ne ko ràpp ubaat mm. la ilaha illallah ne nit ñi daal nekk ay dab lañ rek dab nag soo ko duyul rek doo xam la ci nekk mm. nee na keroog nuyoo ba foofu la yam mu def nag sëriñ bi àll boo xam ne bii euh, mënatu ko mënatu la toog mu daal di ne mu daal di boole téere beeg jëf yi gi yéen ko sa ñit daal di jóg daal di tifir tifir daal dugg ci biir daal ne ne ëpp ne bëkk néeg bu ñuy wax goote jang am la ko ne wool ma sëñ gan ñooñu mu daal di koy woo sëñ mu jaañ ak ak ak kii ñu daal leen ñu daal dugg ci biir kër mu daal leen dal ci néeg boppam mu def nag sëñ bi àll boo xam ne nag sëñ bi tàng nag ci ci bis boobu mënatu la toog nag la ilaha illallah la ilaha illallah nee fii sëñ mu jaañee fi ma toog mu ab ab ab ab ab jàllaa bi la jëkk fab fekk ma fa ne ma ko xëpp ne ma am addiye sëñ Tuubaa tàng dem dem dem dem ba mu yàgg ne maraakis yi mu julee ji woon kori démb mu ñëw jox ma ko ne ma am addiyee Sëñ Tuubaa dem dem dem ba mu yàgg ne fàpp laj koloñ bu mag andi ma jox ma ne ma am addiyee Sëñ Tuubaa dellu dem dem dem ba mu yàgg ne ma fàpp booli beñee ñëw ne sëñ ma jaay am am addiyee Sëñ Tuubaa daal di jox xam sëñ bi ne ko sëñ mu jaay sa liggéey bi sànq la ko cee sedd sëñ mu jaañ ne ko ah ne yëreeti da ngooñ jooy ne ko man day mbàkke boo ci xam mu jaañ laa du sax doy na ma mu ne ko sama xol sedd na ci lool noonu nag ñu daal di sone ci jumaa ji te fekk sëñ bi dafa julli ci ajjuma bi ñu sonee nag sëñ bi eh, sëñ bi daal di ko kon baax na ñëw li ma ñaanal leen génn dem ba beneen mu so ñu daal di leen ñu daal di ànd génn bañ génnee daa daal dem nag ne sëñ bi daal nee ñu teg ci ab diir eh, am ki eh, kilifa gu wàcc goo xam ne gi sëriñ bi moo war a dem ñaanal ko moom sëñ bi sëñ daal ci boppam mm-hmm. ne fi bi ñu ko agsee ci armée yi mooy euh, fi fi fi fi fi fi oto bi yem nga xam ne mënatul àgg fa fa néew ma ne. Hmm. ñu di koy jàppoo loxo nag ne bu ko kenn nuyu. bu ko kenn nuyu bu ko kenn nuyu. Ah. nee sëñ bi daal ne fi mu toog ci taxaw ci wetu yoon bi nii mu mu ñu jàppoo ko nii. moo dem ba tolloog moom ne sëñ bi ko xàmmee moom jàdd jox ko loxo. mu ne ah lii de àgg na ko foo xam ne yaakaaruma woon àgg na ko. Hmm. moom it sëñ bi Diagne nag daal di koy def àll nag ci ci ci ci ci noonu sëñ bi defee ci fii. daal di koy def am mu ne nag kon man lii moom xam naa ne danaa ci liggéey sëñ Tuubaa daal di tàmbali nag euh, euh, ci dajale président nag daal di ciy tàmbali nag jëf jëf ci fula nag fu fu euh, mu dem daal di ku ku bu mu ñëw ci yow rek ab si téere xëy da boo ko joxee mu bu ko nee ràcc rek daana daal xam yim ci am xam yim ci amul bu mu ci amul rek mu daal di koy bindal boppam ci kii bi mu yor léegi nag mu di ko def di ko def di ko def di léeg-léeg mu jóge cee foofu rek ñëw siyaari sëñ bi boobu sëñ bi sancagul kër gu màggee ba mu kër gu màggee nag léeg-léeg bu sëñ ma jaa ñëwee fokk mu àgg fa moom siyaare ko ba bis mu àgg fa siyaare ko sëñ bi sëñ bi ne ko ah man sëñ ma jaa am naa machine yi mool mu ne ko machine yi mool mu ne ko alxuraan ak xasida daane nañu yóbbu sëñ Mat Jaañ ci machine boobu li ñuy daaru salaam ba foofu la ñu yóbbu machine ya ku ñuy wax eh, boobu lañ jëli Ibra Fall mi ca daara ja mu ñë yor machine yooyu ak ay ku ñuy wax alaaji Mbàkke euh, sëñ Maodo Faas ak euh, ñooñu ñoo nekk boobu bu ñu ko tiiree ba noppi dañuy dañ koy euh, toog ci biir néeg bi rek dajale ko hmm. ba mu àgg ñu daal di koy jox alaaji sëñ Sàmb alaaji sëñ Sàmb daal di wut ay armoire yu rafet rafet daal di koy jox sëriñ bi mu def ko ci néegum néeg bi mu dëkkee néegu boppam hmm. lu noppi ci téere yi rek ñu def ko ci armoire yooyu ba boobu néeg fees mu sanc beneen ba boobu see mu sanc beneen ba foofu mu sanc beneen ba yàgg mu xam ne kat lii kat mënta wéy ndax téere machine yi moom ñu ngi fi tudd dutuñu fi jóg mu mu daal ne xam ne kon nag léegi kon am sàkkal ko daara yi boppam jot na fekk na kër gii bi ñuy séddale kër doomi sëñ Tuubaa yi wër jumaa ji lii mooy doon kër sëñ soñ bu bañ ko joxee sëñ soñ sëñ soñ moom du fi dëkk daal di koy jox sëñ Abdou Lahad radiyallaahu anhu addiya sëñ Abdou Lahad it daal di koy fab joxaat ko sëñ Abdou Xaadir mi mu dendal ak moom addiya sëñ Abdou Khadir teewul defu ci dara mu yem fam yem rek bàyyi kër gi mu mu mu doon mu doon kii. ñu def ko def ko def ko ba mu agsi fii nag bi mu agsee ci loolu nag mu yónnee ma nag sëñ Abdou Khadir ne ko kër googu kat maa ko joxoon waaye ne ko maa ngi koy laajaan ndax dafa am lu ma fi bëgg a defal sëñ Tuubaa sëñ Abdou Khadir daal di koy jox kër gi mu daal di fiy tàmbali kër gi mu daal di fiy tàmbali daal di 1975 ba mu koy tàmbali. le bind bataaxel bi jox ko seigne Mat hmm gis nga ko Fatou Sarul Muharram hmm ci 1975 hmm ne ko seigne yow sëñ hmm assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nuyu na la lu bari sant na la gërëm na la ci sa pass pass ci seigne bi nu amul luddul mom tay ak ëllëg di la yëgal ne dafa am liggéey bu ma nisara defal borom Touba fii fi Touba Mbàkke te dogu ci def ko te war la ko yégal war ko yëgal képp ku ma ku ko yaakaar loola moo di kenn umpule wul ne sëriñ bi alxuraan moo doonoon liggéeyam bi ko gënoon a moo doon liggéeyam bi ko gënoon a soxal gënoon koo itteel mu nekkoon ca nekkale woon ca ku ko soob ngir mu féete ko ca googa wàll moo waral may itam téere yi may mool di ko ko dajaleel fi këram gu mag gii fi Tuubaa Mbàkke ngir topp ndigalam ak xeeñtu mbooram ak sàkku ngërëmam ak sàkku sàkkul ko képp ku ma àndal léegi nag téere yi yegg na foofu kër gaa ngi bëgg a xat ci moom ma bëgg koo liggéeyal bërëbu boppam bu yaa bu rëy bu rafet bu yelloog moom ci kaw loolu sàkkal naa ko daaray boppam fi penku jumaa ji ba defarlu naa palang bi ba teg ko ci loxo yi architecte bu bu bu jox na ko entrepreneur bu nu doy ba waxante nu ci juróom fukki million boobu 1975 ba juboo noonu ci mu daal di tàmbali liggéey euh, sartu mu nekk liggéey bu gaarante te bokk ak jumaa ji ab ci gépp fan ak wépp melo ba mu ko defee rek la ko daal di jox sëñ Tuubaa nga xam ne sëñ waa ku fi nekk sëñ waa rek yaa ko lii mooy li ma nisal te dogu ci tàmbali ko ci fan yi incha allah war la koy yëgal war koy yëgal képp ku yaakaar Seexul Xadiim te nu war bokk sas ci liggéey bi li yunfiqu zuu sa'atin min فلينفق بما آتيه ولا ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعده يسرا صدق الله العظيم والسلام, والسلام عليكم كلكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سيرين بي نك دال دي واخ نك سيرين مجاج نكو سيرين مجاج سي تيري بوبي لو ليپ لو ديك رك مكو اندي ndax ne bang makoy jox de magi am luma wara def lo xamni bobu waxuma le kuma ci andal waye kuma ko meuna waxtane sax awumako mm -hmm. lu dikk rek moo ko indi daal di mu daal di tàmbali nag 1975 nag lañ daal di tàmbali daaray kaamil fii daa koy tàmbali nag di di ko di ko tabax ñu daal di mu daal di jëli sëñ Mat Diagne euh, ci jaay ajël daal di koy toxal si mu nekk ci kër gu mag gi nga xam nga magasin bu mag boobu ñuy fi bi ñuy euh, inauguré euh, forage bi magasin bu mag boobu ñu defoon tolloog këru Daaru Salaam gi moom la ñu mujjoon lépp nekk foofu nga xam ne foofu la sëñ mu jaan di bis bu yàlla sàkk bis foofu lay nekk mu nekk fa nekk fa di ko dajale di ko dajale di ko dajale ñuy liggéey eh, daara ji nag 1975 76 77 bi ñu àggee 77 nag donc bu njëkk bii fekk na boobu la muy wax juróom fukki mel mooy lii lii féete nii boobu la la ci kanam bekkugu bokkugu ci ne loolu moom bi dikk ci ñëwee di liggéeyal Ndiouga Kébé ci jumaa ji do lañ ko jox dog boobu moo ko jum àggale moom waaye bokkutoon ak juróom fukki millions lii mu joxoon lii mu jëkkoon a tàmbali. 1977 mm-hmm. nag la dog boobu àgg sëñ bi daal di jël nag sëñ Mat Jaañ ak téere yi ñu ñëw sanc si béréb bi 1977. kon ñu déggee ci ne Daaray Kamil 1975 lañ ko tàmbali. waaw 1977 lañ lañ def ubbite gi. ci lañ ko inauguré ci lañ ko ubbi. Mm-hmm. waaw moom ubbi ubbi ko moom ci la ko ubbi. Mm-hmm. keroog bañ koy ubbi. sëñ Mat Jaañ dafa wax ne ah mbuub mii de lislaam a ngi koy doog a daloo. mbub mii ñu def tey jii. Hmm. daal kaamil ci loolu yi nga xam ne alxuraan ak xasida dañ ko fi def euh, euh, lislaam a ngi koy doog daloo tey. waaw ndax naar yooyu ñu fi daan yebal ñu ñu daan ñëw koor waxtu koor eh, di di di di di dem ci dëkki eh, réew yi jullit yi di leen jàngal xam naa mel ne dañu leen jàngal lislaam ak yooyu. Hmm. bañ leen jàng eh, indee ñu ñëw dugg ci jumaa ji xool fépp ba mu àgg ñu ñëw dugal leen daaray kaamil. wan leen wan leen yi nga xam ne yii ah, mi ngi fi alxuraan yi yi nga xam ne fii lañ ko bindee ak xasida yi nga xam ne bind ak téere yi nga xam ne ah, ah, xam-xam yi nga xam ne yëpp islam nangu naa jaxasoo ak ñoom ñu wuti ko booba sëñ Maodo Mamoun la ko la ko sëñ bi daan jox daal yàlla moom it mu dem ci yi di ko wuti ay Égypte ak yëpp de de seeti ko ba jëndi ko indi ko ñu def ko ca eh, saal bële ca mooy ñu la jox saalu arab bi. Mm-hmm. ba bi dugg nañu xool ba xool kifin bi yépp ñu ñu ñu siyaar ba gis ba bañ àgg foofa ñu ne léeg léegi da ñoom dañoo jëlale sax lée nga xam ne alxuraan la fii lañ ko defee ak xasida yi nga xam ne sëñ Tuubaa ko way ak mboolem waaye saar bii nga xam ne mooy saalu arab bi ñu wax ne fan dëkk la jóge amu fa waaw nga xam ne moom foofu foofu foofa foofa lañ ko jógee te noonu foofa lañ jógee amul foofa kon nag Euh, loolu sëñ bi jaay wax ne euh, euh, mbubb mi de islaam ak lislaam a koy doog a daloo mhm. waaw mhm. ñu ñu ñu ñu soog a soog a fab nag téer yi ak sëñ bi jaay ñu sañ ci sañ ci daara ji mu nekk fi sëñ bi jaay rek moo fi daan xëy mhm. moo fi nekk ne fi nekk ba soixante-dix-huit ñu soog a fab nag machine yi ak liggéeykat yi ci daan liggéey nag léegi ñu am indi leen nag ñu machine yaa ngi nii machine yi mool yi ak mujj ñu jëli ku ñuy wax bëy di faal mm-hmm. mu jógee Ndakaar ñëw mu di leen jàngal nag ñi nga xam ne ñoo mu jàng leen machine fii ñu di ko móole fii di ci def li nga li ñu war a def lépp ñu di ko mm-hmm. nga xam ne euh, euh, euh, relire beeg yëpp dafa jëti jëli ñu koy def ñu indi ko fii nga xam ne lépp fii lañ koy mujj di defee mm-hmm. buñ bu bindee téere bi ba àgg dañ koy yóbbu ci saal bu mag bii dajale ko ba mu nekk ay kii ñu ñëw indi ko jale ko fii jox ko sëñ Mate Diagne mu tàmbali ko topp moom ba nga xam ne Euh, lépp ànd na mhm. ndax bu ñu ko bindee téere bu ñu ko bu dee téere bu ñu bindee fii bu ñu ko dindee dañ koy indi mu topp ko ñu soog koo móol bu ko moolee ba noppi ba dajale ko moom lañ koy indilaat jëf ko mu toppaat ko ba mu ba mu nekk kaamil bu mat boo xam ne ëppul yeesul mhm. ñu soog ko jox ñu koy reliir ñu relire ko ñu soog ko formé dugal ko ci bibliothèque bi looloo tax euh, euh, bi 1978 nag lañ indi ñooñu machine yeeg liggéeykat yeeg ñi fi doon liggéeyee ñëpp ku ñu wax ak sëñ sëñ Mewdu Faas euh, ak sëñ Alaaji Mbàkke mm-hmm. ak Ilaadi Mbàkke mm-hmm. ak ak ak waa kër sëñ Moodu Maamoon ñang mm-hmm. ay Murtala ñang ñoo ak Saam ñang ñoo ak ay wësa kii sëñ Mbàkke Gasama ak ay ay ay waa kër sëñ si kii ñoo ñëpp nga xam ne waa kër sëñ Moodu Maamoon lañ ñooñu moo leen fa bon indi fi nga xam ne bis bu bu àggee bu ñu koy dajale sëñ Modou moom lañuy wax sëñ bi mooy mooy togg añ yeeg li ñuy yëpp kif lépp di ko indi booba nun ñi euh, sëñ Moustapha am sëñ Saliou la jot mooy mooy njiitul dajale bi nga xam ne bu xëyee day daal taale otom dem ci mbooleem daara yi daal ke sëñ bi boog ke sëñ soxna boog ay ke euh, ay sëñ rek ay yëpp daara yëpp da leen dem jëli jëli fa ay nit ak suñ daal daal yi sa samba ay ñëw ñu ñëw di daj jiitu ci dajale bi bu ñu ko dajalee ba mu àgg nag ñu indiwaat ko sëñ Modou Diagne sëñ Modou Diagne soog koo defar ñu soog koo relire nag soog koo denc nag ci bibliothèque bi. Mm-hmm. mais 1980 81 nag ci la ci lañ ci la indi ci lañ indi ndaw waaye euh, ndaw nag moo moo yoroon moom mooy doon bibliothécaire bi nga bibliothécaire bi nga xam ne gouvernement bi ko fi indi woon. Mm-hmm. man ci 1981 kat la ko fi indi. Mm-hmm. léegi nag moo yor bibliothèque bi loolu sëñ Modou Diagne yor nag fii nga xam ne moom euh, moom moo fi moo fi la nekk. lolu mu ko yor yor ko nak yor nonu ñuy doxal liggéey bi doxal liggéey bi doxal liggéey xane lépp sëñ bi ci mujj gi daf ko ah sëñ mu jaañ sama liggéey bi lim may ñor ñor bu doon yow du soti ne kon nak lo tax sëñ bi bi nga xamantene doxal nañ ko doxal nonu ba ñuy doxal liggéey bi nonu ba señ bi génn aduna 1989 sëñ Abdou Khadir radiallahu anhu euh, moom itam daal di yor fekk moo mooy mooy xalif général di moom it daal di fabaat sëñ mu daan jiitalaat ko ci liggéey bi mm-hmm. mu jiitu ci liggéey bi ñuy dox euh, ba euh, sëriñ bi wàcc moom yàggu fi at mu manqué tuuti la fi mm-hmm. demee sëñ Saliou radiallahu anhu moom itam daal di nekkaat xalifa bi daal di fabaat sëñ mu daan daal di koy jiital ci liggéey bi mm-hmm. mu jiitu ci liggéey bi di ci dox di ci dox di ci dox ba ci mujj gi bi nga xamante ne nag sëñ Saliou daal di wax sëñ Modou Diagne nag ne ko xasida yi dafa bëgg ñu ñu ñu ñu ñu ràññale ko ni ko sëriñ bi ràññale woon dox def ko da nga xam ne noonu la ko sëriñ bi waxe woon sëriñ bi booba dafa wax ne bisimilah rahmaan rahim ne tax lii mun li ak xam le lii xala mag ki ngi da xam ku la man taxan la xabiya képp ku aju ci man ne ana ni naka man de ana ni naka man dafa jo nekku na gën dañoo jàpp mu taalim li am li aman ku la man taxal xam ne ana ni naka man ne tawajjot ila laahi tabaraka wa taala jublu naa ci yàlla sama borom bi tawalif ci ay taalif te kon yoo xam ne nekk na fii haa ci taalif yi mën naa fi al muslimina muslimaati jëriñ julli julli góor yi jigéen yi fii dunya wal axirati waaw na jamiha ma katabtu fi xaybatil bahriya lépp lim bindoon bi mu nekkee ci biir géej gi loolu xidmatan rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam wa baraka wa shikru ak jihaatu la xayru wali saalika looloo waral nag mënatuma tere mi naqli ci ko toxal wasatatu wasatatu dama ko suturaal loolu nag mooy xës day géej gi mooy fulk bi ak xasida gi ya alam nasa bi ay ay faati ay asmaa aldi bërdin nga xam ne mm. mooy yim defoon ci géej gi biir mm. géej gi mm. yooyu mu ne mi naqli wa satar du ma ko ko kenn laal loolu moom itam mooy yi nga xam ne bi mu euh, sëriñ bi bi mu nekkee ci biir géej gi ku ne xam na ne boobu mi ngi ci biir yi noonam mm-hmm. te moom yoru gànnaay yi muy xeexee ñu ay fasal ak kënoog yooyu yoru ko moom li muy def lépp ci arab yi la koy def di ko bind di ko seetu di ko jàng ba am li mu bëggoon ci diggante ak boroomam diggante mu yoon diggante mu noonu lislaam yi noonu yi dem nañ ba ñoo jéggi benn tànk jàll ñu xam ne lii mënatu loolu tax ñu wëlbatiku ñëw ne ko léegi dañoo bëgg a siñeenteeg yow ne dutuñu jóg mukk jëm si ci yow ak force ñu signé loolu ne léegi sëñ bi dañoo bëggoon a nga signé ne doo fetal jaar jëm si ci ñun sëñ bi ne fasoo wunu ko de mu ne dañoo bëggoon nga signé wax loolu rek signé ko bind ko mu ne mu ne fasoo wuñu ko de ñu wax wax mu taxaw foofu benn tubaab jug ni leen bind leen li mu wax ndax 5 septembre 1895 bañ àndee ak moom jàpp ko ba fii mu toll nii lépp lu mu mës a wax rek mu succee dellu gannaaw kon lu mu wax rek see bu ngeen bind ko loolu rek lay wax ñu soog a bind loolu mu ne leen nag moom mu si bind ak ak ak ak ab bindukaay bi rëdd aw rëdd tomb ci biir ñu ne ko lii lu muy firi mu ne mooy euh, wët yi mooy lislaam tomb bi mooy alxuraan su ngeen ko laalul rek euh, euh, du leen am ak man benn wax ba ko bindee ba noppi nag la fooba la la soog a téye xalima ga moom ne leen nag xalima gi moom téye naa ko ku xare ba not da ngay jàpp jaam ne leen bind naa ci dëgg duma leen ko jox ñu ñu ci bindaat fenn mm-hmm. xalima googu ne ñoom la mas a téye ci jikki gi bi mm-hmm. léegi nag xasida yooyu moo tax mu ne manatu bi nax li wa satartoo mm-hmm. mooy yim daan yim daan xeexek noonu mm-hmm. ndax euh, sama baay da wax ne bu fekkente ne euh, xam nga ba xeex ba jeexee nag mm-hmm. nga xam ne euh, ñoom signé nañ ne dutuñ yu jëm si ci moom ak force mu ne mu ne moo mu bind na xafawtu anil ahdaa i turan jéggal naa noonu yi léegi nag xeex ba jeex na ba xeex ba jeexee nag gànnaay yañ yoroon daan ko xeexee loolu tubaab bi wax c'est le feu nañu wéeru gànnaay yi moo tax moom it mu ne manaxtu mi naqli wa satartoo mooy xës de géej ak ak ak ak la ci aju day mel ne rëdd woowu mu rëdd tomb ci digg bi ne mooy alxuraan ak lislaam ku ko laalul du ma jot ak yow waaw day mel ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahaafizuun waaw loolu mooy loolu mooy li sun borom wax alhamdulilah waaw loolu nag moom mu ne lislaam ak ak kii nag lislaam ñu ne ko ñan ñooy sa ñooñ mu ne lislaam bi rek alhamdulilah kuy wax di ashhadu an ilaha illa illallah muhammadu rasulullah rek ci sama ñooñ la kon nag bu ñu ko laal laalu alxuraan rek amu leen du mu am ak yéen benn wax mu mooy loolooy bi lim bindoon si mu ne waa maa maa xablaha minal makaarim yi nga xam ne ba mu koy bind demagul ci géej gi yi njëkk ba mu daataan dem ci géej gi yooyu neen fa la ñu yuqbal minhum shay'un suñu boobam nangu ci daal bu ko kenn bind bu ko kenn yooyu nag moom la murid yi gën a xam mooy fii eh, eh, yi nga xam ne moo jiitu géej gi yooyu moom nee na eh, seen jamono wéy na yooyu mooy ay sindi di alama sekkato raay xataaba sifaay xidma ay wasilu ada taxmi ism darbar ak yi nga xam ne ñoo jiitu géej gi hmm. nee na yooyu seen jamono wéy na hmm. mu ne wa man araada nag an yentafiam fi dunya wal axirati ne ku bëgg njëriñu adduna ak alaxira faliee tey na nga faral fi màkka tuuti ci li ma bind fi bax yi timug si ci des yi li ma fiy ama sayidina bi karam mooy yaari ati gànnaar ama baksatin ci ci mooy 1904 ci miladiya boobu ma nga gànnaar mm-hmm. mu ne na fa tilka makaat bi yooyu makaat ñoo faaxat xëyrul xuraan yi wala addis ñoo kawe lépp lu alxuraan ak addis fa suñu borom xatan wala xaa ñeel na leen ñoom barakatun asimatun barke bu màgg boo xam ne lam takun fi xayra moo tax nag sëñ Saliou fàpp kii bi kii këyit bi nag jox ko sëñ ma jaan ko nag ah, ama sëñ naa bi karam yooyu laa bëgg nga génneel ma ko ba mu àgg boo sëñ ma jaan tànnee ba mu àgg nag mooy juróom-ñaari diiwaan yooyu nga dégg mooy diiwaanu xuraan ya xas yi nga xam ne ay alxuraan lañ ko tënk te nekkul ci fulku mm-hmm. bu ci nag bu doon ah, ah, nekkee ci fulkoom dañ koy génnee nekkatul ci eh, kii bi mm-hmm. ba ba yooyu àgg mooy xuraan ya mm-hmm. xas yi ñu tënkee ay alxuraan moo tax ñu naa ko quraaniyatu ak am daaxam nu babiya moom itam mooy yi nga xam ne mooy ay jës mooy muxadimaan mi daal di ay nuur daal di ay taysiir taysiir yi xatmul quraan la moom bu bu murit moom la sëñ bi def xatmul quraan bi nga xam ne moom la def naa ko ci ci youtube bi def naa ko ci waxtaan ci youtube bi am daaxam nu babiya ak maraaxil am ni wa saxaada ak diwaan suyalaat am waamu soor yi def am nangam ak saxam nangam ak yow ma nangam weer yeeg at yeeg bisi diwaan bi ko def diwaan suyalaat am waamu soor ak bi xëy ayatu quran moom itam benen diwan ak diwan fu yolaat fi sikri wa sukri ak diwan bi wax aju bëti wa wasaaya seexul khadim mo ci mujj mooy numero 7 bobu it euh, euh, borom xam-xam yi bi ñuy ñëw ci serigne bi ñom jébbul taxu leen a dañ doon laaj ak di diingat bi ñewé ci serigne bi nak laaj mu tontu ñu laaj mu tontu ñu laaj mu tontu ñu xamni ki kii kat fañ ko tegoon nekk fa ñu soog a wàcc ñoom jébbulu mm. waaw laaju borom xam-xam nag dafa bokkut laaju laaju laajub moo tax laaj boobu laaj yeeg tontu ak dénkaan yi mu daan dénkaane moo juróom-ñaareel diwaan boobu ba mu ko defee ba mu juróom-ñaari àgg nag mu mu mu def ko ci euh, gaal nag dem yët ko sëñ Saliou radiyallahu anhu mi ko doon liggéeyloo sëñ Saliou def na ci signature am def na def wax na ne signature sëñ Saliou mooy muy faaxaan dëppoo na li am dinaa suñu ndigal ba tala bi naak suñu sàpp Saliou ibnu Cheikh Amadou Khadim juróom-ñaar diiwaan yooyu mooy mooy yi nga xam ne mooy mooy mooy juróom-ñaar diiwaan yi ba mu ko joxee sëñ Saliou sëñ Saliou bind na ci signature am boobu ne bii faaxaan dëppoo na li am dinaa ba Amadou Khadim mm-hmm. moo tax juróom-ñaari diiwaan yooyu xës di ku ci nekkul rek dañ koy tere looloo waral nag sëñ bi ko ko sëñ bi waxee nag ba mu àgg nag sëñ bi fab yëkkatiwaat eh, juróom-ñaari diwaan yi dellowaat ko sëñ bi Jaañ ne ko damaa bëgg ñu defar ko te ko ndax buñ ko ko wecciwul eh, ba mu tasaaroo ci taalibe yi bañ mën koo jàng ba bàyyi ñuy tere loolu taxoon mu dellowaat ko sëñ bi Jaañ nañ ko defar nag te wecc ko ko mm-hmm. moo tax ñu defar ko ko di ko wecc ndax buñ ko wecciwul kenn du ko mën a am mm-hmm. mu ne ko nañ ko defar te wecc ko ko ndax mu tasaaroo ci biir taalibe yi mm-hmm. bañ mën koo jàng ba bàyyi yi tere loolu moo ko moo ko sëñ Saliou wax kon day mel ni loolu bunt kon diggante sëñ Modou Diagne ak xam-xam day mel ni kon loolu mën nañ ko faa mën nañ ko faa dugal. waaw ndax mel ne wax nga ci alxuraan di ñëw na ci xaside yi. waaw te it diggante ma xam-xam it bokkoon na ci li ñu waajaloon. waaw te loolu mu war a bind war a tasaaroo ba taalibe yi dañ ci réer loolu moom ci ci ci anam xam-xam rek lañ ko mën a dugal. xam-xam la mën a indil. loolu moom moom itam mm. euh, xam-xam bi mm. euh, mboolem ñi mu daan jàngal ku muy jàngal bu mu ne alxuraan moo koy jàngal téeri yi téere yi téere yi xam-xam yi mm. téere yi nga xam ne yii euh, Euh, sëriñ bi ko bi téere sëriñ bi. Mhm. moom la téere sëriñ bi rek la daan jàngale moom. mooy wax téere majalis yi rek. waaw majalis mhm. euh, lay jàngale. Mhm. yooyu yëpp moo ko daan jàngale moom. ku ku ku fonk xam-xam la nag. ndax mboolem ñi muy jàngal du nangu kenn ku ci ku ci ne euh, da jàngal alxuraan jàngal la xam-xam su ko xel matee wala sa yàgg fa mat ko mu jàngale alxuraan jàngale xam jàngale liggéey. loolu moom euh, xam-xam moom ku ku ku fonk fonk la moom. nga soog a sóobu xasida ndax it Baye Cheikh day mel ne xam-xam boo ko peegee di nga ci la ci la yoonu xasida yi di gën a gaaw ci la mën a ci la mën a dugg ci xasida yi bu baax a baax. Mhm. Euh, ndax ci xam-xam boobu bu ko amatoon euh, lim bëgg a def ci liggéey ci xasida yi du ko man mhm. Mm. Mhm. te liggéey bi euh, day liggéey boo xam ne bii liggéey bu bu bu yéeme yéeme yéeme la mm-hmm. ndax euh, fii ko sëriñ bi indi woon sëriñ Abdoulaye daa ne koo xam ne kii waxtu wu nekk ma ngi ci ma nga fa fa fañ koy liggéey la mm-hmm. waxtu wu nekk rek ma ngi ci la war a def da koo jaaxal ci ndax sëñ bi du dem fenn moom sëñ bi am bis bu yàlla sàkk bu xëyee mi ngi ci liggéey bi mm-hmm. amul fenn fu muy dem wala lenn lu muy defi du bokku bokkul ci dara itam liggéey bi kese moo ko ñor kon de xanaa buñ ko mënee wax ci benn kaddu ko dañoo ne sëñ Modou Dia ñoom fagguteefu sëñ moom dafa daf ko daan wax ne ko nit ñi de daf cee am ñoo xam ne dañ laa liggéey ci ñoom am ci ñoo xam ne ñi dañ leen a liggéey mu ne ko yow nag sëñ Modou Dia dañ ñoo booleb liggéey moom fagguteefu sëñ Tuubaa la boo xam ne sëñ Tuubaa ko waajalal boppam moom moom euh, sëñ Tuubaa rek a ko ñor nag ak ak ak xasida moom moo tax xasida yooyu mu ne eh, eh, nit ñi murid yi di wax naa kenn ku ne kenn xasida yi kenn mënut ab lépp ne muy leen loolu mu mënu koo dégg hmm. fale ko tàmbalee ba nga ne xasida gu gu tegee ci bëtam rek am na ko xasida gu mu teg bëtam rek fas fas naa yéene naa ko am hmm. loolu 1907 1967 la ko def ba ba ni mu tàmbalee dugg ci liggéey bi hmm. ba dugg ci liggéey ba dajalee xasida diiwaan yooyu yëpp moo ko dajale moo ko wër ci réew mi di ko génnee kenn ku mu dem ci moom Ah, ah, ah, abal si téere xasida hmm. eh, eh, eh, nga jox ko ko mu xool am lam ci am xam na ko la mu ci amul xam na ko te loolu bi nga xamee ne sëñ Fallu radiyallaahu anhu moom itam jumaa ji àgg na 1963 hmm. daf ne li ko ginnaaw si jumaa ji mooy liggéey sëñ Tuubaa ci alxuraan xasida hmm. daal ne nañ dajale xasida moom itam joxe ndigal ñu am comme bàyyi sëñ mu jox ko bataaxel nga xam ne comme dem ci yow ci murid yi doo doo ko doo ko ñemee nëbb sa téere xasida moom it ñu ànd loolu dajale dajale dajale bu jëmee cib dëkk dal ci pénc ma ñuy bind bind ñuy togg di andi ñi am ay addiye ba bañ ji bëkk bu jeex bañ ko defee ba dajale ba agsi moom itam bañ daataan ku dajale ki léegi wala ki yëpp lal mu ne kon bi moom bi mu ko tàmbalee def le néeg bi lakk na ñetti yoon te tëri yi la ko mu ne kon xam nañ liggéey moom suñu borom ànd na mel ne kon bu doon loolu ab listixaar la ñu ne kon listixaaru téere yu nangu liggéey bu nangu bu suñu borom nangu la mhm. moo tax mu tàmbale ko mhm. moo tax suñu suñu suñu bilaat ne ko sa liggéey sa téere boobee te ba ma ko jox ne ne moom a gënal téeméeri million yi ñu ma jox ndax mhm. booba te dafa woon naa ne kenn atunu koo joxe ne ko booba de li waxuma la ku ma ci àndal waaye ku ma ci wax ku ma ko waxtaanee sax awma ko booba nag xam nga mooy xam na ne liggéey bii boobu aw sasama te booba gisagu lenn lu ci boobu hmm. bi mu ko joxee téere bi nag la soo ko xam ne kon euh, euh, euh, mbir mi agsi na hmm. moo tax mu xam ne mu def ko aal boobu nag ba mu mu lépp ko ci hmm. jabarug sëñ bi daa mel ne ñi féetee ñi nga xam ñi nga xam ne dañoo feeñ ci jamonoy mujj gi lu mel ne Cheikh Mouhamadul Mourtada soxna Maymunatu Mbakke Euh, ñooñu amoo loo ci mën a indi ci. loo xam ne ñoom it ñooñu mm. ñoom it kenn ku ci nekk mm-hmm. kenn ku ci nekk am na ak yow euh, aw kibir xam nga suñu suñu murlaa moom. Mm. Euh, da doon ab seey la ni moom mbokkam moom dañu daan dañoo jaxasoo lool sax. Mm. ak lu nekk itam daan daan fa dem fa moom di ko di ko di ko di ko di ko fa defal. ak soxna Astu Gaawaan soxna Astu Gaawaan it booba ba muy nekk ci àll ba daf daan def. bu ñëwee day taxan sareetu mat matu jële matu mu rafet mhm. teg ko ci sareetam eh, guddi gi bu bu ki fi ne guddi gi eh, tàmbalee tari alxuraan ba ba balaa fajara jot mu ak si kër soxna sa eh, su gaawoon nga xam ne taxan loolu lépp moo ko daan defal Ablaay Kan moomu ba mu koy bindal téere boobu xuraane bi ba mu daataan àgg soxna Fatou mu nga xam ne bindal na ko téere takkal na ko téere néeg boo xam ne bii ci loxol boppam la ko la ko yett xat bi ak ñax mi ak lépp lu ñu ci def moo koy yett ci loxol boppam ba defar ko néeg bi ba mu àgg mu jox ko ko nga xam ne soxnaam fa ma dañ doon am doom fa Fatou mu fab sama rakk yi topp man jox ko ko mu muy muy soxnaam moom Ablaye Kane mi bindoon téere boobu si soxna soxna Mbène Gabou moom ñoo dëkkoon fee ci ngaw moom itam ku jaxasoo ak moom la. Mm-hmm. Euh, ak soxna May. Mm-hmm. ak mboolem waa kër Sëñ Tuubaa ñi. soxna Sunte moom xam naa dana ko fonk ndax moom soxna su soxna su ko wax xaside yi moom. moom loolu la ko fokkee lool sax moom. Mm-hmm. moom dañoo jaxasoo woon lool lool lool lool bu nga xam ne lu ne defal na ko. moom itam ak sëñ Fallou moomu ak sëñ Moutala ak sëñ. sëñ Abdou Khadir. Mhm. moom it moo ko moom it ku ko ki fi noonu la moom mhm. nga xam ne mm, sëñ Mour Diagne ndax euh, xaside comme liñ naan féete wax sa xaside bopp daa nga gis xaside mas ngaa xam xaside gum tax xool wala xaside gum dañ naan xaside boppam laak yooyu waaw wala xaside gum naan dig digal njaboot gi neen deen jàng deen ko jàng ak yooyu waaw loolu moom loolu moom yu bari la sax mhm. daana ba nekkee ci daara ji boobu da daal def boobu bu yàgg na boobu bu bu ñu bu cëggee mu kenn ku nekk mu yëkkati ak xaside jox la ne la ne la demal bind ko indi nga dem bind ko indi mu topp ko nga ne la jàng ko mook nga di ko nga di ko nga xam ne daara ji booba ñu xasida yi bu ñuy jàngi alxuraan la ñuy jàngi xasida yi dañ koy jàng di ko mokkal di di ko tari xasida yi moom euh, xasida gi ñuy wax jànnatu aajale hmm. googu la daan def waxtu gu nekk mu ngi koy tari moom hmm. Hmm. googu moom moom moom moom da ko daan tari lu bare bare bare bare ak euh, xasida yi itam moom xasida moom li mu tari xasida ginnaaw wakaana ginnaaw ama shahid naa bi karam yu ay wakaana xaq nag xasida mawahidul bichri rek xeet xasida yooyu waaw waaw yu bari daal daa nga daana ko kii yooyu moom yooyu da koy waxtu wu nekk da koy am na ci yoo xam ne da koy da koy tari rek moom buy dem tool fi ne mun dem tool ba ni mu dikkee xasida lay tari bu bu ñëwee alxuraan alxuraan lay bu bëccëgee it alxuraan bu lim li ñuy bind di ko indi mu di ko topp woo waxtu woo waxtu la koy topp ba ba ëllëgati mhm. muy topp alxuraan di topp xasida yi mhm. di topp euh, gifin yi mhm. xasida gii ñuy wax euh, li may bi si laxat jaakum nag googu moom sëñ bi sëñ bi laa da ko joxoon moom ne ko dee ko jàngal bis bu set ak sóortu soxrof ne ko yooyu moom bis bu set dee ko jàngal yooyu moom euh, boobu sëñ ma sëñ ko jox ci ndigal mu di ko jàng bis bu yàlla sàkk ne di xëy di xasida sëñ bi laa moom waaw toorka la sëñ Modou wax ak mujjam moom euh, euh, bi mu demee ba toll ci war a war a génn jamono. mujjug hmm. mujjug sëñ Modou Diagne boo ñu ko doon indil. waaw yooyu yoo ci yoo ci fàttaliku yoo xam ne takk nga ko ndax góor yàlla gu liggéeyal yàlla ba yàlla war koo gërëm. du ñàkk bu fi bàyyi ko. am ay kàddu yu ndénkaane wala yu muy junj yoo xam ne. waaw moom hmm. booba dénkaane na sax waaye moom hmm. ak mujjam moom. <coughs> booba sëñ Saliou moom la taxoo lool ndeysaan. nga xam ne sëñ Saliou euh, daf daan def bis bi yàlla sàkk. bu bu bu bu bu kii day yónnee ci moom ne ko boo wàccee kat na nga fa ñëw. Mhm. bu wàccee bu ñëw fa bu ah bu bu sëñ Saliou dem ci daara ja ànd ak moom yóbbaale ko ci daara ja boo demee daal di dal fa daal ne woo dong yi nag leen dem leen ak sëñ Modou Diagne jàngale leen mhm. xam ne moom euh, da koo def ba ba ginnaaw bu nga xamante ne euh, kifin na xam nga kër sëñ Tuubaa gi sëñ Saliou joxoon na ko ko mu yor ko. Mhm. ci ci mujj gi ginnaaw buñ ko buñ ko buñ jógee ci loxo hospitalier mm-hmm. suñ mu jaañ la ko joxoon mm-hmm. moom ndax dafa boobu xool suñ Saliou si xool xool mu yàgg mu ne ah man de foofu ku ma ku ma doy ku ma ko gisee suñ mu jaañ dong laa fa gis te foofu boo ko fekk na mi ngi fii mm-hmm. moo yor daara ji waaye suñ Saliou woo ko boole ko daara ji ak kër sëñ Tuubaa gi mu yor kër sëñ Tuubaa googu yor na ko euh, defe naa lu mat at wala ñaari at yoo xam ni moo moo moo ko ginnaaw bi nag euh, mu mu dem mu wàcc fii di dem am bis nag mu mu mu muy dem nag am sareet euh, bu dajee ko oto fekk mi ngi ci oto bi. Mhm. Euh, oto bi gaañ ko nag. sareet bi gaañ ko. Mhm. waaw 1999. Euh, mhm. bañ ko ku fi ne nag ñu daal di koy yóbbu hôpital daal di koy kii bañ ko xoolee fii ñu daal di lii nañ ko daal di gaaw yóbbu bañ ko gaawee daal di ko yóbbu ñu à à daal di ko fay fekk. ci guddi gi ñu daal di eh, ñu ñu daal bi ñu ko docteur seet daal dañ ko yóbbu dañ ko yóbbu Fann mm-hmm. ko yóbboo Fann fa saas lama ma daal ne ndax ndax Atou Diagne yëg na ko ma ne ko de mën a wax ko mm-hmm. ba ma woo Atou Atou daal di woote seen daara ja ca mm-hmm. euh, ji si njaareem ji si njaareem la jëkka woo ñu daal di koy fekk si hôpital fa saasa ñoom ñoo jël euh, fekk ñu ne euh, ambulance bi fi nekkoon dafa am ku mu yóbbu. Hmm. léegi ñu ñu daal dem euh, luyee ji ambulance su usine bi. Hmm. ñoo waa waa hospital ñoo daal di dañ ko jël ci guddi gi ma ànd ak moom daal di ko yóbbu yóbbu Fann. Hmm. bi ñu agsee Fann euh, fekk gaañu gaañu yi bu fekk ne woo nañ ka fa nekk euh, Masor Sène. ne ko da nga ko teer mu mu bi ñu ñëwee nag ma ci guddi ay deux heures lañ àgg foofu ci ci hôpital bi. ma àgg foofu daal di fekk. Euh, ma dem ci masoor seen daal di koy fëgg mu ne ma woo na fekk na bu ma jóg na day jàpp. Mhm. mu jug ci néeg bi jàpp ñu daal ñëw fekk bi nga ko indee hôpital hôpital waa docteur yi dañuy xaju fi mënut a dugg. Mhm. mënu fee dugg. ñu ne seen ñëwee ubbi ñu daal di koy xool di xool di xool di ko xool bu yàgg muy di def nangam ba mu mu jox bind ordonnance jox ma ni ma ne la ambulance bi yóbbu nga dem jëndi ko ci bitig ma dem jëndi ko ñëw. ñu di ko xool di xool mu yàgg ñu dugal ko faar ñu faar ko euh, jël ne euh, dañ koy téye ñu téye ko hôpital bët seet nag sëñ Saaliw yónnee sëñ ah sëñ Murtala moom moo ko ñëw fekk si foofa seet si ko fa ci hôpital ba mm-hmm. hôpital bi mel ne day kifin nag ba mu jógee fa nag ñëw euh, sëñ Saaliw nag soog ko fab oto bi boobu mu ko joxoon jox ko ko nag ne ko léegi nañ oto bi yóbbu bu dugal ci saali mm-hmm. waaw mu jox ko oto boobu man mii maa yor oto boobu juróom-ñetti at yor naa ko fii oto bi ginnaaw bi nag bi mu ko euh, euh, la ko jox ba l'an 2000 nag la soo a wàcce liggéey moom sëñ Mat Jaañ waaw ba mu wàccee liggéey ah, euh, ñu daal di koy yëgal sëñ Saaliwu mm-hmm. bañ ko yëgal sëñ Saaliwu mu ne nañu ko wax sëñ Mourtala mu fekk na sëñ Mourtala dem tukki mm-hmm. ma nga ba defe naa boobu ci wetu risaatal xaw ma foofu la ko fekk. Mhm. bañ ñu téléphoné wax ko ko. Mhm. Euh, mu ne kon nañ dem sëñ Abdou Hakim na ko jullee. est que ñu soog jëli sëñ Abdou Hakim nga xam ne sëñ Muntaxa mi ba bañ ko waxee dafa daal di yónnee ci sëñ Abdou. Mhm. ne ko kat ah mbirum sëñ ma jaañ kat dama caa bëgg ñëw te xam nga booba bu ko fa rek sëñ Abdou euh, day daal di wax ne ko kon yaa koy jullee. waaye day dem wax ko ko ba nga xam ne ginnaaw lu ma lu sëñ bi jox na ndigal ne moo na ko jullee. waaye nag damaa ñëw bëgg ñu fekk si ko moom ndax mbiram moom dama caa bëgg bokk mu daal di koy nangol mu mu daal di nga xam ne ñu daal di dem daal di koy rob daal di ko daal di nga ke sëñ Moussa moom sëñ Saliou keroog daf ne sëñ Mat Jaan Jëy sëñ bi bi mu ñëwee juróom-ñetti mbir yi nga xam ne moom la bëgg a def ci ab liggéeyam sëñu blaat ne dafa fab ñaari mbir yi jox ko mooy alxuraan ak xasida moom la féetale sëñ Mat Jaañ sëñ Mat Jaañ nekk ca ba tëy jii kon nag sëñ Mat Jaañ moom aaya la ci aw aaya la ci alxuraan aw aw bëyit la ci xasaay yi loolu sëñ Moussa Kero wax bañ ko robee ba noppi nga xam ne denc bi sëñ Muntaxa fekk na ko sëñ Abdou Karim moo ko moo ko taxaw waaw sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa moom dafa ñaan moom dafa ñaan sëñ Abdou Karim ne ko dama bëgg nga dimbali ma ba ma ñëw rek te ginnaaw yoolu sëñ bi jox ndigal moom yaa koy jule waaye nag man nag ma may ma ñëw man ndax boobu xam nga ñoom ni ñu ni ñu joxee seen. warmalante gi warmalante gi. Mhm. bu bu bu bu ñëwoon rek sëñ bi du ko du ko ñëwee da koy wax ne kon yaa koy jël. Mhm. Mhm. te moom la sëñ bi ñu wax ndigal. mu ne ko nag kon damaa mu may ma man ma ñëw fekk si ko. sëñ bu may ko loolu. nga xale bañ ko <laughs> rob ba tubaarkàlla. ñoom ñëpp ñëw bu ko defee ba ëllëg sa bañ koy bañ ko bañ kii bañ ko ñaanal ñoom ñëpp ñëwaat dañ ci kër euh, di ko di ko di ko jàll si. nga xam ne ba mu ko defee nag. Euh, l'an 2000 boobu nag la wàcc liggéey. Mm-hmm. bi mu wàccee l'an 2000 liggéey ci weeru rakki gàmmu. Mm-hmm. juróom-ñeenti fan ci weeru rakki gàmmu la gaañ euh, wàcc ci l'an 2000. Mm-hmm. bañ ko defee ca rakkaati gàmmu ji nag bañ ko saraxee ba kii ba noppi nag. suñu Saliou soog maa woo nag man jox ma béréb bii booba laa fi nekk ba l'an 2000 boobu laa laa ñëw fii. tabarakalla waaw tabarakalla loolu tax. Baye Cheikh yan du ngay tëjee daa mel ne euh, jumaa ji mi ngi seere suñ jotaay bi ne. waaw. day mel ne dugg na ci jotaayu sëriñ bi gërëm. waaw xam nga. kon day mel sëñ Mor it boobu ñu ngi ko def ci almeer yu njëkk yi. ngir leeral loolu. léegi eh, lañ ko yóbbu. ah baaxee lañ ko yóbbu. Uh-huh. nag. Uh-huh. sëñ Mat Jaañ ci boppam li ma lay wax ci digganteem ak sëñ Blaat. Uh-huh. ci ci ngërëm ko gërëm. ak uh, bind benn benn lettre ay lettres yu bare bare bare sax. waaye bii mi ngi ko bind yomal jumaat yi. saamili awaayili rajab ci weeru rajab am alsasin mu ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yow sëriñ Mouhamadou Diagne maa ngi lay nuyu lu bari lool lool te di la te di la gërëm lool lool lool ci sa ci sa ci sa jëf ak sa taxawaay te leer ma di la xamal ne sag pay ci fi nga ma féete te mat ko sëkk sëkk amuma ko waaye nag wóor na ma ne yàlla ak seexul xadim danañu la fay ba mu wóor ñépp ne walaahu yulaafu liman yasaawu lu wér la ci dëggu danañu la fay ba mu wóor ñépp ne wa aatinaahu ajroo fii dunya waynoo fii laaxirati la mina saalihiina lu wér la ci dëggu man nag mëna lu ma la dara lu dul xamal la ne la sag pay xam danañu la fay ba xamal la ne la fa ajruka sab yool yow ala war warna yàlla wa ala seyxul khadim ak seyxul xuna fii nu ne ak fo wa una waa anaak fan jëm alaykum kullukum wa rahmatullahi taala wa barakatuh awalan wa akhiran kata abdullah fi tuba belal boobu tubaabeel la nag bind ko téere ba tax bi tax yéene ko ko mm. moom da ko cee gërëm rek moom mm. beneen bi itam daf ci ko daan liggéeyloo ci téere yi sëñ jëmm si yi fi nekkoon mm-hmm. bi sëñ sëñ bi mu fi génn bi mu génnee àdduna mm-hmm. téere yi la ca lépp sëñ Abdoulaye da ko jëndoon indi ko fii mm. jox ko sëñ Mut Jaañ di ko ko di ko ko di ko ko joxe ku muy bind ku muy ku ciy jox ñu nga lii mbindum loxol boppam la mbindum sëñ Abdoulaye la waaw est-ce que mu Jaañ nu naa gërëm naa la lool ma maa ngi yónni ndaw lii mm-hmm. ngir nga wutal ma juróom-ñaaru kaamil ci eh, eh, kaamil Serigne Jëmb mm-hmm. dama koo soxla woo mm-hmm. wasalaam mu bi di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké fii Touba mu daal di bind fii ci wet gi nag ne ko nuyu naa la maa ngi lay seedeel ngërëmul Seexul Xadim ci yow ba bariwul konku bi léegi bind ko ci loxoom ni ko mm. maa ngi lay gërëm seereel gërëmu sëñ gërëmu Seexul ci sa ci Allahu akbar waaw loolu moom sëñ Blaata ko bind jox ko mm-hmm. mm. sëñ Saaliw it noonu la meloon ak moom ak sëñ Murtala ak mm. mboolem diwami kër waa kër sëñ Tuubaa yi mm-hmm. noonu la ma samel ak ñoom mm-hmm. moom moom fa tabarak suñu borom ne sëñ Abdou Lahad Xaadir di wax naa man xamuma jàmbaar kuñ dimbali laa xam waaye moom yàllaa ko dimbali loolu dimbalul yàlla la alhamdulilah loolu tax sëñ Saaliw it ndeysaan bi kifin bi demee am dañ kii ñu wax ne ndaw lañ jiital ci ci maktab bi moo ko yor léegi ndaam ak ndaam sëñ bi jaan jëm wax ko suñu saaliwu ne ko ah dañoo wax ne ndaw lañ fa jële mu ne ko ah déedéet ndaw moom gouvernement bi la fa yow yaanu fa nekkal yow yaanu fa nekkal kon nag moom sëñ Tuubaa rek la fa nekkal moom moom dong la la la la am soxla itam waaw moo tax moom alhamdulilah rabbil alamin mm. Baye Cheikh yan kàddu ngay tëjee <laughs> ginnaaw buñ la sante gërëm la ci jotaay bu tedd bi nga xam ne nangul nga nu ko tey mm-hmm. muy télévision alxadimiya dikk fi fekk la daare kamil mm-hmm. ci jotaay bu tedd bi ak weer wi nga xam ne dafa boole zarfu zaman ak zarfu makan yan kàddu ngay tëjee <laughs> tëje gi de mooy nu bokk xam loolu rek xam ne bu ñuy wax eh, jikkoy gaa yu baax yi mm-hmm. nun ñi koy wet nettali ak ñi koy dégg li ñëpp li ñu ci bokk war mooy fas ku yéenee dégg te topp ko mhm. tax bu ñu lay wax jikkoy gaa yu baax yi mboole mboole ñoom ñoom ñëpp ñu di leen netti seen i jikko sëñ Abdoulaye ak sëñ Saalib sëñ Murtala ak sëñ Saalib Fall sëñ mbooleem ñu di leen wax seen jikko eh, la la cay jariñ mooy nga fas ku yéenee dégg te topp ko roy leen ci jikko yooyee ñu doon doxe ndax loolee ñuy doon doxee ah lu Fallu radiallahu dafa wax ne nit ki de lum la gën gën gën rek sañ ko koo roy kon nun roy gaa yu baax yooyu mooy li nga xam ne li moo waral jetaay yi ñuy def di nettali seeni i jukko te def nañ ko bu juggi fi nekkatuñu fi kon war nañu euh, fàttaliku jukko yooyu di ko nafar ngir ñi fi ñi des seen gannaaw mën a jaar ci seen tànk yooyu ba fekk leen fañ ne mm-hmm. ndax loolu lu ñu soxla la mm-hmm. te it ci dugub roy leen dong lañ mën a àndeek ñoom ndax nit ñi boo waxee que nañu roy seen blaat nañu roy seen euh, euh, nañu roy seen ñu ne ñu ne eh, ñu li nga wax après loolu sëñ Tuubaa na ko roy te sëñ yi waxoon na loolu ne la bu ñu waxee loolu kat eh, loolu pexem seytaane la waaye eh, nun ndax yonent Yàlla sallallaahu alayhi mooy kilifa gu lislaam bépp te des koy roy ndax julli gi ngay julli ci kooku roye ci moom koor gi kooku roye ci moom asaka ji mboolem yi nga def ci lislaam ci yonent bi salaam yonent bi nag bu ñu koy roy bu ñu ne nañ roy sëñ Tuubaa ñu ne mënee su ko roy ndax roy sëñ Tuubaa mooy eh, imtisaali awaamir wajtinaabu nawaay mm-hmm. topp ndigal suñu borom bi bàyyi li nga eh, tere loola jukko yu sëñ Tuubaa mm-hmm. ndax eh, dafa wax ne képp koo xam ne ki def nga leen sa borom digal de mm-hmm. li bëgg ci lépp ci àdduna ak alaxira ko am képp koo xam ne bàyyi nga li muy tere li ngay ragal ci adduna ak alaxira da nga ci mujj yooyu yaar nag mënuñu cee ñàkk dara kon roy leen ci jukko yooyu ak doxin yooyu ñu doon dox ak fañ tegoon euh, euh, mbir mi di ko fa doxal mm-hmm. buñ jàpp ne euh, ndax li alxuraan wa saabixoona lawaloona lawaloo leen moo ajir wa lan bi si ne itaboom bi insaanin mm-hmm. bu keroog raliyallahu anhu moo mm-hmm. ajir ak lan saar yi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi waaye ñi ci topp ñëpp di rafetal ba bis pénc ba bu keroogee noonu la su su borom boole leen ndab raliyallahu anhu wa ralu anhu kon nag roy gi munta a ñàkk roy nag damay wax ne bu ñi ko ñi ko mënut dañuy daal di eh, ñi ko ñi ko nërta def dañ koy daal di ñaawal mm-hmm. daal ah sëñ tubaa bu ñu ko mën a roy sëñ tubaa dañ koy roy mm-hmm. yonent bi alayhi salaam dañu mboolem yonent bi nekkoon dañ leen di roy mm-hmm. roy munta ñàkk roy nag dama leen ne mooy sëñ tubaa de su boobu ne bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi din foofu la jaaroon baa siin miim foofu la jaaroon boo nee baa siin miim topp ko foofu yaa ngi koy roy du ma ne nag danaa ko jot du ma ne danaa ko danaa ko raw. du mel ni moom. dinaa dina maa foofu la jaar fi laa jaar. Oh. loolay roy. Uh-huh. foofu fi mu jaaroon rek fi leen jaar. Uh-huh. mooy bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah rabbil uh-huh. kon nag eh, roy du ma ne danaa ko jot danaa danaa ko raw du ma ne mel ni moom. fi mu jaar daal fi laa jaar rek. dañuy wax ne roy waaju baax boo mënta mel ni moom it dana tax nga raw sag morom. raw sag morom. waaye roy dafa mën di ñàkk. moo tax euh, ba jukkoy gaa yu baax yi ñuy euh, far di nettali di ko nafar di ko di ko di ko di ko di ko di ko wax waxtu wu nekk ñu di ko dégg mhm. nun ñi koy wax ak ñi koy ñi koy dégg ñëpp li ñu ci war mooy dégg ak topp parce mhm. que yéenee dégg ba mhm. xam ne loolu kat mooy si euh, mooy mooy mooy mooy jukkoy gaa yu baax yi nu fas ko yéenee roy ba fekk leen fañ ne Baye Cheikh balaa ngaa wàcc sa kàddu ñaari ñaari baat ci sëñ Muntaxa rek ci nekkam ci jamono ak ni mu ni mu jommale mboolem jamono rek. ak sëñ Muntaxa moom yàlla na fi yàgg te ci sunu kanam. <laughs> waaye moom moom moomu sax fii ne sëñ Modou Diagne dafa jaxasoo woon ak moom lool ndax daanaka ko gane si yaaween moom. alhamdulilah sëñ Muntaxa. Hmm. daanaka gane si sëñ Modou Diagne yaaween. Mm-hmm. moo tax dafa jaxasoo boobu gis nga bii ma lay wax nii bi mu demee sëñ Muntaxa dafa ne moom fokk dana ci ànd. Mm-hmm. sëñ Muntaxa moom yàlla na ko yàlla eh, suñu borom doole matal ab liggéeyam amiin ba mu àgg lool. amiin te nu bokk koog moom. amiin lépp lu mu tàmbali man waxtu wu nekk damay ñaan lépp lu mu tàmbali. yàlla na ko suñu borom àggale te may ko ci ngërëmul yàlla ak yontu bi ak sëriñ bi. ndax moom sëriñ bi rek ko ñor. ay waxam waxam booy liggéey sëriñ bi rek. Mhm. bi ma tàmbalee ñaanal sëriñ ma jaañ ginnaawam ba mu euh, euh, ba mu ko yëgee daf ma ne bu mu amati mukkuti ñëwoo wax ma ko. moom moom moo ko sëñ mu jaay moom da da da ko da ko da ko àggoon foo xam ne fii moom mm-hmm. euh, yéeme na waaw nga xam ne moom euh, ndax sëñ mu taxaa moom euh, ni mu mel ñëpp ko gisandoo mm-hmm. moom alhamdulilah rabbil alamin yàlla ko yàlla ak boo àggale mm-hmm. te te te may ko ngërëmul yàlla yonent bi ak sëñ Tuubaa ndax ngërëmul sëñ Tuubaa doo nga ko ñor ci mboolem li muy def rek kon moo tax moo ko tax agsi fii mu agsi nag ndax euh, euh, ba ba ba mu jógee. Mhm. la daal di laxasaay rek sàkku ngërëm te te sàkkoo ko noo xam ne yii itam. Mhm. Euh, lu mu xam dana ko ci def lu mu mën dana ko ci def. Mhm. loolu na ku ko def ci mbir danga ko am. loolu tax kon moom yal na ko yàlla Sëriñ Tuubaa booleeg moom. saa yi rek waa du yàlla axira. tabaarkalla alhamdulilah sant nañ bu baax a baax mbokki taalibe yi kon ah. dafa mel ne jotaayu xamle ku baax. Hmm. bi ñu doon amal fii ci biir daaray Kamil te waroon ko Cheikh ak Baye Cheikh Diagne. Hmm. muy seen euh, enregistrement numéro 2 bi. Mm. loolu day mel ne kon jotaay bi képp koo xam ne teewal woon nga ko. Mm. dégg nga fi loo xam ne doy na la sëkk ci bi yóbbal. Mm. ba nga xam ne kon liggéeyal waaju baax ba am ngërëmam rek moo am solo rawatina ku mel ne Cheikhul Khadim. waaw day mel ne kon ki ñu doon waxtaane mooy sëñ Mouhamadou Diagne ñu gën koo xam ci Baye Modou Diagne Daaray Kamil mm-hmm. moom lañ doon waxtaane feggoog Baye Cheikh Diagne mu wax ci kaddu yu am solo yi nga xam ne mm-hmm. ay jaar jaaram la mm-hmm. tàmbale ko ci gën a jamonom ba ci jamono yu mujj gi ñi ngi ñaan daje ceeg tawfeexe sëriñ bi nag ak ngërëmam di bàyyi sëriñ bi mu yëkkatil ñu jotaay bi ci ñaanal ñu wasalaamaaleykum eh, wa rahmatullahi taala wa barakatuhu photo am sëñ Modou Diagne ma nga ne ko كل السلام عليكم ورحمة الله آه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجهت كل يسار من barab bi ngeen xamee moon si Touba ba tax dootu leen demati feneen di jéggaan leneen agsi na fii si dëkk bu sell bi showroom Diaw Déco si Touba 28 ak le gérant Pape Abdoulaye Diaw taalibe Serigne Fallou chaibo bi moo sagal doomu dara bis ni ki tey jàppaleen kenn dematul feneen di wuti leneen ndaxte nag ni ko Serigne Touba waxe woon si Matlabul Fawzayni lépp lu gën léppay ak si Touba Diaw ko ma nga ca yoon wa mbokki Sénégal mbokki Touba lépp lu ajo si wàllu lumière électricité meuble pour seen décoration métallique lépp lu jëm si ak jawde ko Touba 28 jaaxle jeex da ngeen bëggoon ay enseigne ngir taaral seen barabu kay mu doon totem branding habillage façade lettrage enseigne lumineuse yu mengo ak jamono jawde ko fa B. tibbee le la ñi gën xam ñi gën a ñi gën a bëgg lu baax dëkk yi gën a mag wërngal di jëlee kon dal mbokk yi ak ngeen Touba 28 am est ay lumière sur toutes les formes ay nouveautés tendance yi nga xamanteni mom appliquer partout si barab yi gën a ay luminaire suspendu luminaire plafonnier si jawde ko Touba une large gamme de luminaires et de lampes waaye une décoration liñ ci mën ken menu que si fii mimreo. décoration yu mengo djamano. décoration intérieure gen am salle wala salon à manger gen am jàkka gen bug bëgg ay lustre wala le plus xeet décoration pour barab yooyu bu barabou chasside, barabu len diaw leen déco décoration chambre espace bu mën a doon djem lu électricité Amna les grandes marques du monde le grand Ingelec amna nañu ay contact ak lépp loo xamante ni daal moom ngeen kay nga découvrir ndax ay découpe laser jaw déco mo leen yembal machine huit tax ngeen mën réaliser li ngeen bëgg jaratul dem fanen sunu ay machine mo leen génnal ay design yu mucc ay pour cette décoration bu mu rampe escalier wala les luy travaux sunuy enseignes sont de qualité garantie pour une durée de un an si wàllub menuiserie jàppaleen mbokk yi bu ngeen bëggee dressing cuisine américaine comptoir ngeen bëgg ay logo yu mucc ay mën ngeen woti 76 224 44 04 wala 76 726 84 84 jaw déco ci Touba mo leen gunge les plus seen travaux ànd ak personnel bu disponible accueillant xam wàllu wi ak gérant bi nga xamante ni lépp lu yokk Touba moo ko tax a jóg moom Pape Abdoulaye Diaw taalibe Serigne qui Cheibou mooy ñaanal ku tedd ki Serigne Bachir général des Mourides yàgg fi lool te ànd ak timbar ma amar wayal ma